defal ñu ngi ñaawlu li nga xam ne moom am man ñoo naa bi ci suba mais leneen moo indiwoon ñoo naa gis li nga xam ne moo am eh, biñ fi ñëwee suba gisuñ ko woon après lañ gis ni bi gars yi pompé ba ndox mi wàcc ñu gis ni am na nit ku fi ku fi tëdd ku génn àdduna mu ngi ba Bassirou Sarr ñu ngi wër ay njabootam ñu ngi woo ci contact gi mais ba léegi jotaguñ et eh, c'est l'occasion bu ñu xamee kooku eh, xale bu jeune la trentaine d'années bu am dërëj yu xaw a gàtt. ku xam tur boobu rek vraiment nga déggee police ginnaaw raay pour ñu xam kan la une trentaine une trentaine d'années ci carte d'identité bi ginnaaw leen bind waaw ginnaaw leen bind centre APEX je crois que loolu daal lañ ci am comme information